am ordre social da ngeen may may tey ma jël ordre social ndax kii ñu fi dajale moo tax kon bala may ñëw ci présidium bi da ngeen may may mag ñi fi ne ma nuyu leen tey ñaanal leen ñu gudd fan te wér lool ndax mag du yàlla waaye yàgg yàlla and after you permit me to welcome our guests from Europe I'm advisor of President of Senegal in the cultural field. And here you have the director of arts of Senegal, this woman, and you have the general director of this theater. So, you know, it's a great honor for, for us to receive you in this country. And we say Dalal Jam. Dalal Jam means stay in peace. Stay in peace in this country. And we thank you for what you do for our our son, our brother. And what you do for him, you, you, you do it for, for our country, you do it for Africa. And during your, your trip, you know what is about Teranga. You know why this guy is open mind and why he have to share all what he have. I think that you'll feel this during your, your journey here. Uh, mbokk yi ngeen baal ma ndax nit moom li sëñ waxoon sëñ Moussa Ka ndax sëñ Moussa Ka bi muy tagg sëñ Touba da ko daan tagg ci arab sëñ Touba ne ko loo ci jublu Cheikh Moussa Ka ne ko gis ni nga bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa ak yonent bi sallallahu alayhi ni mu bëggee araab mu ne ko wax nga dëgg de moom de bëggoon na ko ba bis mas naa fëgg dënnam ci biir màkka lu mu bëri lu war a def ne arab a dàq ci làkk yi mu ne ko nag boo bëggee ma yëg la mu yëgoon danga koy wax ci sama làkk dee ma tagg ci wolof loolu moo tax sëñ Moussa Ka def arab di def wolofal ñoom it loo leen mën a wax dangay ngay jéem rek ci nin ko déggee ngir bu ñu demee ñu nettalil seen bopp ndax gan buy ñëw nopp lay indi ak i bëtam waaye bu dem làmmiñam lay yóbbu kon nañu góorgóorlu ñun ñëpp ba gan ñi yóbbaale làmmiñ bu rafet ginnaaw mag ñi maa ngi nuyu sama sama xarit El Hadj xamoon ne yaa ngi senegal sax da bàyyi làqatu bi nag dégg <laughs> waaw di di di nuyu Doudou Ndiaye Rose non du biram man Doudou Ndiaye Rose laa ko tuddee moom xam ne man xam naa waaw moom dama ko tuddee ndax doon sa baay moom doon sa maam doon koo ko gën waaw di nuyu sama sama frère mustapha euh, ndax euh, li ñu liyee dafa doy waar ndax euh, famille moom booy dugg dafa am bunt booy jaar rek man sama bunt ci famille bi cuuna la waaw doomam ji bi ma koy jàngal xaw ma ne cuunaa ko jur maa ngi koy wax sànq ne Ibou njaay bi ma koy fekk Suisse di dem tournée Antigone xaw ma woon ne cuunaa ko jur dama dégg rek na am na xale yu def stage ma am tubaab yi yu ñu doon ñaxtu ci yenn africain yi nga xam ne dañ doon ñëw ba foofu di def activité culturelle te xamuñu ko ma xëy sol sama dàll ànd ak Lamine Sonko doomi Buli ànd ak aw Sonko ne leen nañ dem wëri ñiy def stage ñu xool li may fekk maa ngi koy wax léegi mustapha muy def stage bu xaw a compliqué parce que bugër la boole ak ndëpp donc bi ñu bi ñu paree ma xool ko nag sama sama xol sedd lool ci ci ci liggéey bi ni mu setee ci laa ko laaj ku ko jur mu ne cuuna moo ko jur te man boobu fekk na man may administrateur u Sinomé bu cuuna pendant dix ans waaw kon loolu euh, bu yooyu di am euh, dañuy sant yàlla parce que nag tegle moom bu jubee rek bool bu njëkk ba la kon loolu ñu def lépp seen maam la waaye nag doom yi la seen baay la parce que ñoom tamit bu ñu yàqoon ndono bi bu ngeen ñëwee da ngeen fekk galan bi damm je pense que Moustapha Barki démb bi ñuy rendre hommage Germaine Acogny Madame la directrice des arts, monsieur le directeur général, je vous salue, Alassane Cissé, je te salue. bërki dem rendre hommage Germaine mon xamul ne manque salle bi parce que dañu monter spectacle def partition euh, man ma euh, Jean man ñaata minute laa am mu 3 minutes Je ne ko da ngeen may def ci composition mais bu leen ma wax fan laay duggee parce que képp kuy doomu géwal ku yàgg tëgg xam nga ne nit mënoo ne ko na talmat te du sërxal waaw doomu géwél yi xam nañ li may wax waaw nit moom mënoo ne ko na nga talmat waaye bul sërxal mënoo ko boo ko defee moom mënta ne man leen nag comme dañuy rendre hommage Germaine Acogny te waa kër sunu bàyyi Doudou jaay Coumba Rose war ko ubbi dafa am loo xam ne su ma ko defee su Moustapha duggee dina am écho parce que xamoon naa sa partition xamoon naa li ngay def parce que Jean du monter chorégraphie bu ñu liggéeyul mais bi nga duggee keroog ba def traversé ba yéeg ngeen def seen seen seen rythme ba wàcc dama sant yàlla parce que li ma sant yàlla mooy dafa am lu ma wax man moom ndax dama naan tëjoog moom dafa am lu ma wax te lim ma mujjee wax mi ngi ma ko wax keroog bi ñuy denc suñu baay vieux sëñ man ak moom ñoo taxaw bi ñuy jullee man ak moom ñoo takkaloo avant ñu koy jullee mu am lu ñu wax man ak moom ñu jël rendez-vous ma yeew ñu tàggee ko te la mu waxoon ci diggante yéene la ak ndono yéene ak ndono ci loolu foofu rek lañ nekkoon yéene ak ndono ak it lu mu bëggoon ñun ñu def ko ak lu mu bëggoon ñu taxawee ko mais image boobu ñu bëri bàyyiwuñ ci xel maanaam mu toppatoo kóllëreem ba dem denc ko kóllëre gu jàpp ko ba mu ba mu dem fekk ko maanaam kóllëre day àgg ba foofu kóllëre dafay àgg ba ci dee nit ñi bàyyiwuñ ci xel yàlla nag moo yor bakkan mais dafa am lu ne lum ci lum ci ciy expliqué lu tax ñoom ñaar ñu demandoo lu tax kii denc kii ñu demandoo deuxième misal bi pour confirmer li may wax ni dafa am lu am kokki barki démb ngawlo lu doy waar kër ñoom Ousseyn Ndiaye parce que sama nijaay la sunu baay Sidi Ndiaye di daan ànd ak suñu baay Boukounta ak baay Basiru Seck bu bu bu Mbàkke soxnaam dafay wopp ñu yóbbu ko Italie maa ngi Italie man 4 avril bi passé mu àgg àjjuma demul hôpital gaañu samedi ñu indi koor bi koor bi wàcc aéroport wujjëm wi mu nekkaloon ca kër ga génn àdduna ñu boole leen tàkkusaan suul te ba seen jëkkër génne àdduna ba léegi kenn ci ñoom génnut pour confirmer que dëgg boobu mag ñi àndoon génn googu ñu génnandoo message la woon pour famille yi message la woon pour ànd bi message la woon pour dëggu gi ci ànd bi donc loolu c'est hyper important képp ku mës a àndal ànd naag yow ci dëgg képp ku mës a liggéeyloo ngay sët ngay doom amee lu la ñax dalay fay kay nga tiit ay fay nga ñoo ko ñemee lekk nga naan ndax maa ko moom wala dafa am ku ma ko bokkal dem naa ak moom ci waxtaan ba xam montant yi mu daan fay ni xam na ko mais du kuy kuy wax sama rapport ak nit ñi dafay dafay jàpp rek mais c'est hyper important tey hommage bi ba ñu jógee ci yéen bu jógee woon ci yéen ñi mu jur ak yéen ñi mu meññ directement donte moo ko jur moom du du du safee nii mu safee tey nga xam ne jëfam moo law ba ñi ñi nga xam ne ñoo ñëw dugg ci biir kër gi bëgg ko ba ñoom ñu koy delloo njukkal maanaam symbolique bi moo gën a fort Moustapha mën na ko def lii mën na ko def élage mën na ko def ñoom ñëpp mën nañ ko def xam naa ku ci ne mën nga ko def. biram bu ko bëggoon def tey tey tey da koy def aarona bu ko buggoon def da koy def ibbu bu ko bëggoon def def ko mamadou su ko bëggoon def def ko mais ñi nga xam ne ñoo dugg ci biir njaboot gi ñoom ñu koy def maanaam wolof def na kenn du gis sa bakkan ndax daf laay jege ku nekk ki nga jaakaar loolu mooy gis sa bakkan mais gis mais ki nga ki ñëw nag dugg ci famille ba gis fa yiw wu tax ki nga xam ne moom mooy image famille bi mu bëgg ko rendre hommage hommage boobu dafay ëpp doole sax consécration bi ko bi ko bi ko bi ko waaw da koy da koy ëpp day ëpp tudd bi ko tudd Sénégal tuddee théâtre bi dafay ëpp consécration 2006 bi dafay ëpp sax 1974 bi muy njëkk a liggéey ak le groupe québécois Toubabou daf koy ëpp daf koy ëpp ndax kii am na baay de kii am na baay am na maam ñu tekki nag ñu mat a tuddee bis kon tumurankewul kum tuddee bis bi famille bi laay waxal ndax bu ne rek góor gee am dayoo ba dañ ko ko war a tuddee lu tax tuddee wu ko baayam lu tax tuddee wu ko maamam te bu ko ko tuddee woon kenn du ko lu tax message la bu muy jox famille bi message bi mooy le fait que góor gi def ñetti révolution yu mag a mag la première révolution c'est d'avoir compris que réponse bi ñu mën a jox Europe c'est la réponse culturelle réponse bi ñu mën a jox Europe mooy réponse culturelle du saaga France du sa yooyu yëpp ay caaxaan réponse bi mooy ay acte acte bu njëkk a def mooy lan mooy xool seetaan film Tino Rossi gis violoncelle yi 50 sur scène mu pourquoi pas les percussions mu ne nii laa leen di tontoo comme ñom dañoo japp ne symphonie moy li gëna a ci aduna bi ci tubaab man dina composer une symphonie africaine donc lool une réponse culturelle parce que seigneur daf ne aller au rendez-vous du donner et du recevoir seigneur du agrégé grammaire dina un ci français est-ce que Senghor dina joom ci français kon buy tégalé baat yi ni mu koy tegalee loolu la bëgg a wax daf ne aller au rendez-vous du donner et du recevoir rendez-vous la wax du donner waxul rendez-vous du recevoir et du donner Senghor daf ne africain yi jóg leen joxe ba pare soog a laaj mais ñun dañuy laaj ba pare soog a joxe suñ kooraay sax gis ngeen nuñ ko defee ay clé te kooraa diggante jouer benn morceau di jouer beneen morceau ci accord yi

waaye discipline bi ñu lay jàngal tëggal ne tekk may diw mu tëgg yow ngay bës kii di talmat nga xam ne li ngay bës bu nekkul ci temps kee la muy talmat du nekk ci temps mais kooku kuñ ci yar di nga xam di nga di nga di nga doy doo xëccoo ci tali bi oto di nga xam foo war a yem ak foo war yam yem donc éducation boobu moom lañ def beneen bi mu ne leen comme da ngeen a bëgg lu mesurer lu carré naan ñun suñuy way dafa am ay quart de ton yàgg nga ko dégg suñuy musique carréwul mu ne leen li ngeen di def man dinaa teg téeméeri nit yor baguette mais xool leen sama baguette bu baax a baax du ngeen gis lu ñu bind lu dul dans les consciences et dans les cœurs parce que la percussion sénégalaise elle est inscrite dans les cœurs elle n'est pas inscrite dans des textes parce que ñetti dee la yu jur dund garab gu dee la car bu dee der bu dee moom ngay boole mu dundal sa yaram dee guy jur ndund rek dafa am baatin moo tax maa ngi la koy wax mas naa toog ak moom fële Medina yàgg mu ne ma orchestre yu bari duñ def carrière ma ne ko lu tax mu ne bàkk yi dañuy jël bàkku dee di ko teg ci luy dund mu ne ma tegale bàkk yi sax yow nan ngay jógee Sanjaay jinne dem góor mokku leen dem ku jaan mat nan ngay demee nan ngay nan ngay duggee Sanjaay jinne dem góor mukk leen dem ku ku jaan mat hélas xam na ko dem nañ benn moment bale yëpp yaa ñuy moom la ñuy ubbee bale yëpp mais moom mu xam ne yow booy tëgg ku jaan mat xam na ko moom ci boppam xam na li tax nga koy tëgg xam na lu tax booy tëgg ku jaan matt nga war a terminer saamaan wala doo ko terminer xam na ko ndax ci cosaan boo koy tëgg boo deful saamaan boo ci deful jaan matt xale ñi gën a jege rek kay ñëw saamaan yi mooy ñi nga xam ne ñooy faj ñoom rek kay ñëw waane booy ku jaan matt sam xel dem ci dee la ngay dund ak la ngay dee lépp sam xel dem ci dee bu géwél bi yamee foofu dëkk yi gën a jege fajkat yi gën a jege rek kay ñëw waaye bu ci bi tegee saamaan fajkat lu mu sori sori day bu bu bi il est sanctionné moralement mais foofu la góor gi bëggoon a ñi niveau de perfection boobu niveau de compréhension boobu niveau de discours boobu fa la ñu yóbbu nga war ak da ngay sajj ngir wote kilifa gu ñew nga bakku ko ku ne am sa bakku bop waye nga jital bakku ba pare da ngay sajj dedet sajj wote geew la bu nit ñi ñewé doto sajj da ngay bak wa wa wa wa UNESCO ñi ngi fi parce que ci kàttanu yalla yalla dogal na je suis l'expert de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest pour le patrimoine immatériel kon c'est c'est yene agna. li ñuy def nii lu tax ñu ci insister mooy biram day tari tari dafa amul fenn nous avons respecter ce métier ak lay lay artiste du fi commencé 20 heures fii spectacle ku fi bind vingt et une heures du matin lay ñëw ba pare ñu ne du parce que nous ñi ci bi ci la réponse est-ce que la réponse mën na gën aux colonisateurs que la réponse des Champs-Élysées le bicentenaire de la Révolution française est-ce que la réponse mën naa gën a rëy loolu culturellement jaru sax ñu ci sori yow ku doon koo xam ne da doon tëgguloo sa maam ngir wan ko ne ko du nit amul aada amul cosaan moom li nga xam ne moo gën ci histoire la révolution de 1789 muy def le bicentenaire woo sa baay woo sa maam ne ko nga marquer les consciences mais les réponses sont culturelles elles sont pas dans les injures et les insultes elles sont dans les actes à poser mais kooku lan lan lañ a le modèle c'était le vieux Doundiaye Coumba c'est un modèle de perfection sociale Madame, il était mom bu xaw ma ngeen ci xel xawma je sais pas si image am bu taxaw mi ngi fi jël leen image am bu taxaw ngeen jël ndeer ngeen tek ko ci wetam ngeen xool les formes ñun lool moy suñu rôle analyse des formes c'est-à-dire que silvissé googu set gogo, yiw googu nga def carrière ba sa carrière jeex 1930 ba 2015 85 ans ba léegi nit ñaa ngi gis amut vaar amut tiktok amut dara doo génnee lu ñaaw parce que lu ñaaw néewu fa ndab lu ne nag lam def la saañ bay xëy maanaam kon doomi géwél loolu la war a mel alaaj dut ñaa Coumba Rose kenn mësu koo bëmax kenn ne ko dellul ginnaaw ndax du dem fuñ ko woowul du woote téléphone naan jël ma parce que lu mu war a bokk par force da nga ko jël mais loolu jeune artistes yi war nañ ko xam waxuma géwël yi jeune politiciens yi war nañ ko xam war nañ xam ne modèle yooyu am na moom am na Vieux Seigne am na Samba Jabare Samba am na duñ faat waxtu duñ ko caaxaanee fii kan moo fi am dëj dem jouer ji kan moo fi am fii ku fi am dëj cinq jours doo jouer ji yow nga waaj war a dem jouer ji sali sa sa dee ci biir néeg bi nga nëbb ko nit ñi ba dem jeu ji conscience professionnelle dafa dem jari ay Amérique ak ay business jaru ko lii nañ ko jàngale ci école yi rigueur professionnalisme nañ ko jàngale ci école yi mooy góor gi def na loolu de seede yaa ngi nii am na yoo xam ne ñëwee mu ko wax te amut texte yu mu def ci loolu mais yéen dañ ñoo wax ne ñun nit ku ñu respecté wuñ jigéen ba tax suñu jigéen ñëpp wut ay maami tubaab def leen kilifa ñu naan leen bu leen sëy bu leen wax nijaay te sa jëkkër boo ne ko nijaay say doom say doomu nijaay la ñuy doon di <laughs> doomu mooy sang bi boo ne ko xujja ay doomam say doom dañuy doon say sang dañ lay sangal ba pare ndeyam doon sa maam te xam ngeen ne diggante maam ak sët du am xulo yéen ñu régler kër gi ngeen ñëw déréglé ko moom mu ne damay tontu tubaab bi ñu ne ko nooy tontuloo mu ne damay gàdduloo jigéen waaw te monté un orchestre de femmes ba ñu xam ne discours yi ñuy wax naan jigéen du def lii jigéen du def laa dana ko def mais dañ koy teg ci règle génnee leen ma ban percussionniste ci àdduna bi ban musicien ci àdduna bi moo def révolution sociale bu gën a rëy boobu fan ngeen mës a déggee les rosettes joué ba pare imam génn wala génn génn ci rajo yi ne lii day yàq diine mas ngeen ko dégg quand moo leen gis mës a gis ñu joué ba pare nga gis seen cër ko mais kon moom il était en avance sur son époque donc les génies sont toujours en avance sur leur temps on les attend sur des faits ils sont dans des démarches mais Moustapha duuf ci nag yëpp ci cin xam nga naan xajul ci cin li mën a xaj na ci buñ ko benn benn lee dana ci dem waaye da cee xajandoowut troisième révolution ci lay terminé parce que tey duñ ñëw ci ay fait la troisième grande révolution bi góor gi teg c'est Senghor dafa théoriser loo xam ne nit ñi dañ ne woon théorie rek la le métissage culturel Senghor dafa def théorie métissage culturel

Vous xam des descendants d'esclaves euh, arrachés de leur terre je vais vous enraciner comme des baobabs votre quartier va s'appeler baobab les autres peuples d'Afrique je vous donne un quartier pour lier l'amitié à yéen amitié 1 amitié 2 amitié 3 ñoom di fa a pas de hasard léegi nag Senghor def métissage culturel ne dama koy exprimer parce que Keita Fodeba bi muy ñëw 58 daf doon ñëw pour répondre au ballet di wax tubaab yi ne leen am ngeen bale ñun aussi dinañ chorégraphier suñuy danse ba am bale loolu moo tax jémbe ñëw ba xawoon a rey sabar ba nga xam ne léegi dañuy jël notu notu sabar sax di ko tëgg ci jémbe waaye nee leen dëxin moom dëxin dëxin rafetu rafetu ci palaat déedéet <laughs> nationalité du Ndiaye Coumba yokkal leen ma Massamba Rose rek dana ma day mais ñu ne pour répondre à l'Occident dañuy jël l'un des chorégraphes bi nga xam ne moo gën a styliser chorégraphie nekk un métis ñu indi ko créer Moudra Afrique jaaxle nag ci kuy def kuy tëgg musique ba am na lu ma ci waxtaan ak Germaine Acogny parce que c'est ma sœur. Mais Doudou Rose n'était pas un génie, c'était un don de Dieu. maanaam lu yàlla ne woon un ci àdduna bi rek a moo tax sax sonal woon nit ñi ci di am yaram ak ne <laughs> rek mais loolu c'est moins c'est moins c'est moins important Le plus important c'est sa rencontre avec les chrétiens et la chorale chrétienne. Julien Le Sénégal il ñu a bind et son premier enregistrement d'album date de 74 trois ans après donc avant muy ubbeeku jaxasoo ak nit ñi ba pare Batalo bi mu ban musique la pour yëgal ko nit exactement kan moo ko tëgg jëlal biram biram jëlal jamono jamono jamono jamono jile El dañ ko laaj bi mu am juróomi at sëriñam ne ko du ko jàngal alxuraan te mënut a wàññi loolu laay daanalee sëriñ bi ne bu mënut a wàññi ba fukk du ko jàngal alxuraan mu ne ko wii góo waxal benn mu ne góo mu ne ko wii didi waxal ñaar mu ne ko sa si mi ànd ak moom duma ko wax mu ne sëriñ bi wax ma luy benn boo ma ko waxul man du ma wax xaw ma luy benn ba pare bëgg a wax ñaar sëriñ bi ne ko xaw ma ko mu ne ko benn ki sàkk kenn la kenn sàkk ko kenn fekkewut bañ koy sàkk te kenn lay doon ilaa yow mi diine yàlla benn mooy yàlla mu ne ko wii didi mu ne ko didi mu ne ko wii tati mu ne ko simi ànd ak didi woni wee sëriñ bi ne ko kon jàngal ma ko mu ne ko ñaar si tàkkateefug yàlla lu mu sàkk am na double nit ak takkandeer kow ak suuf dund ak dee xiif ak suur jigéen ak ak góor gone ak mag ajjana safara àdduna alaxira kaw suuf lu yàlla asamaan suuf lu yàlla sàkk am na double mu ne ko trois mu ne ko trois mu ne ko waxal kaat mu ne ko duma wax kaat

waxuñu ñetti la sacralité de la trinité parce que foofa lañ chrétiens yi ci amul ay doon c'était pur et réfléchi donc kooku nitu jàmm la woon mais lan lañ retenir ci nan lañu retenir ci moom ce qu'on retient c'est que un pays ne peut pas avancer en ignorant ses héros man dama ne koo dugg ci néegam fekk fa mu wékk fa photo keneen ku dul bàyyam bàyyam a échoué waaye kenn ku sa bàyyi mat doo jël photo kenn di ko def man de sama bàyyi nekk ci kër quand ton père est véritablement père tu n'as pas besoin d'un autre héros que ton père damay dégg ñu naan waaye waa kër Doudou Ndiaye rose ñoom ñëpp dañoo def rose da dangaa amul rose rek Alaaji Malick nee na ku ne ñëpp a yem dañoo tudd ku la neexul waaw bàkkan seek nga ne noo géwél yëpp a yem déedéet bàkkaan na la neexul waaye neewuñu fi kenn sa bàyyee baax nga ne bàyyi yëpp a yem loolu nag mooy seen problème c'est l'héritage la convention 2003 de, euh, pour la sauvegarde du patrimoine dit ceci le patrimoine appartient aux communautés qui les génèrent. Les communautés sont les seuls garants de leur patrimoine. Ce sont elles qui décident de ce qu'elles gardent et de ce qu'elles laissent. Le patrimoine n'est pas humiliable. Il s'adapte au temps, avance et s'améliore, fixe dans l'espace du temps les choses essentielles à la survie de sa communauté et abandonne en cours de route les charges qui l'alourdissent mais patrimoine est un patrimoine vivant humain trésor humain vivant yàlla est le ku dul dee waaye sàkk na ku njul fàtte kenn ku ne nag fañ lay lire sa lettre doo ko fekkee ndax góor gi néew fi tey te ñu ngi wax ci moom ñun nan lan taxawee ñun njabootam nan lan taxawee ba fii ak 100 ans ba bu nu les lu mel nii ñu mën ñu koo defal kon bakkan ñu ngi leen di gërëm musuma gis sekteen bu def yëfi nit waaye tey am na di la ñaanal eh, li nga wax ne eh, producteurs yi nga fi indi ku bëgg a liggéey ak ñoom ne liggéey ak ñoom loolu lu am solo la ndax Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba dafa toog ci pénc mi ci li ma mag ngi nettali muy jox nit kooko def nii ñaari loxo yi mu tibbaat jox ko ndax moom bu daan joxee du xool lim la jox loola tuuru biñ ko ko waxee mu ne lan ko jox bu ko joxe woon liñ ko joxaat du tuuru moo tax wolof tuddee richesse am am buñ ne la am nga ne keneen am waaye du am indi du am téye am am moom ngeen di jàngi ba Canada théorie de la circulation des biens fekk na suñ mag ñi wax ko bu yàgg

producteur yii nag waxi kese dañ leen ko dul jox dossier lañ leen di jox moo tax artistes yi góorgóorlu leen ngeen am encadrement am administration ñu mel ni ñoom Samba Diaye te ñi ngi fi loolu lañ jàng loolu lañ mën ñoom Ousmane fay ñi ngi fi Sénégal amuñu xaalis artistes yi amuñu xaalis mais juróomi artistes war nañoo bokk war a bokk kenn ku leen di diriger góor gi dafa amoon administration am organisation am planification am gestion waaye Sénégal kenn wóoluwut sa morom nee naa toog di liggéeyante nag ànd liggéey da ko gën wasalaam